لنا الرسول أحمدا Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, <clears throat> sëriñ Aboubacar sëriñ Cheikh Abdou nee mi ngi yëkkati ay kàddu waaw mi ngi kàddu yëkkati ay kàddu ñu nuyo tàmbalee ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di la <clears throat> présenter délégation bi nga xamné moo bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Bachir mu Cheikh Abdoul Ahad mu Sëriñ Abdou Khadir mu tànn mbooloo moo xam ne mbooloo mopp la tax mu tànn leen boole leen ak Sëriñ Abdoul Ahad mooy xam ne mu ngi jëm si ci këram magam ju ko bëggoon lool ci xolam doonoonum soppeem doonoon itam ab conseiller moo tax délégation bi nu mu toll mu xeeb ko waaye Sëriñ Abdoul Ahad jiite ko di doomi sëriñ si Ahmadou Mbacke Gaynde ma di seen mbokk di seen xarit xam naa sax sëriñ baa ngi njëkk a wax ne de sunu doomu baay waaye moom nee na fii nag dafay war a am ay mbubb ndax loolu la yàlla dogal te nee na cër booboo ko dàqal nag boobu lay jël si waaw waaw kon waaw <laughs> nee ne nee na mu ànd ak sëriñ naa sëriñ naa di seen mbokk di seen doomi baay moom alaaji Mouhamadul Amin Baara moom Cheikh Mamadul Fadal moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu relation extérieure ci biir comité d'organisation bu mag la Touba waaye mu ànd ak sëriñ Issa Mbacke moom sëriñ Moustapha moom Cheikh Mamadul Basir ànd ak sëriñ Abo Mbacke xasida moom sëriñ Moustapha xasida nekk ci secrétariat bu comité d'organisation bu Magalu Touba ànd ak sëriñ Falilou Mbacke moom sëriñ Khalil moom sëriñ Fallu moom sëriñ Touba mu ànd ak rakkam sëriñ Abdoul Baaxi waaye ànd ak sëriñ Bachirou Mbacke moom sëriñ Cheikh Gaynde ànd ak sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Moustapha Ndiaté ànd ak sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Fallu moom sëriñ Mamballa ànd ak sëriñ Modou mbakke moom sëriñ Fallou Njurul ànd ak sëriñ Modou Mbacke si mais di seen mbokk seen mbokk moom sëriñ Malick Bassine si waaye nag représentant xalif général des mourides yi ne ci région yëpp moom mi moo leen jiite daan jiite it bu grand magal du Touba ànd ak sëriñ Mourtala Bousso moom sëriñ Abdou bu Bousso moom it moo yor lépp lu jëm ci wàllu hydraulique ak électricité bu comité d'organisation bi ànd ak sëriñ Jili Bousso mu yor wàllu finance ci comité bi ànd ak sëriñ Abdou si moom sëñ Modou Xari si moom sëñ Malick Bassine si waaye ànd nañ ak sëriñ Ahmed Saloum Dieng di seen mbokk di seen xarit moo ànd ak maître Mouhamadou Diop moom it di ku min fii ànd ak sëriñ Mourtada Ndiaye ak sëriñ Khadim Amar moom sëriñ Aliou Amar ànd ak sëriñ Abdou Lahad sëriñ Cheikh Ndiaye ak sëriñ Moustapha Lo ak sëriñ Pafal di entrepreneur di talib Serigne Abdullah Lahad mii ànd ak Serigne Abdullah Lahad si Abdou Lahad Boussa Maram and itam ak Serigne Mourtada Ndiaye ak Serigne Mamoun Niang ak Serigne mustapha si Xasida Serigne mam Cheikh Ndiaye Serigne Bassirou Ndiaye khadimul khadim ak Serigne mam Balla sila ak Serigne Ibrahima tin ñii dal moy délégation bi nga xamné ñom la Serigne Bassirou di seen wayjur wa di seen xarit na nañ and ak Serigne ñëwal ko ci kër boppam gi xam naa kàddu yi dañ koy bàyyee ak sëriñ Modou Mbacke si mu ubbi ko. sëriñ Aboubacrin mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi. nee na sëñ Babacar mi ngi lay nuyu di nuyu sa rakk yi topp sa ginnaaw yëpp. nee na mi ngi nuyu sëriñ Mansour. ak Cheikh Mouhamadul Moustapha. ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ak Serigne Cheikh Ahmed si nee na mi ngi nuyu ñi fi nekk yëpp. defoon nañ na lii defoon nañ ko daaw. fekkee ren. fekkee yàlla nañ ko defaat déwén. nee na yàlla nañ ko defaat déwén. te kenn bañ a manqué. Euh, délégation bi bi ñu àndal. sëñ Fallou Gala nee na lim nañ ko léegi. ci njiitul Cheikh Abdoul Gaynde Fatma. ci njiitul Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaynde ak ñi mu àndal ñëpp. ak ñi mu àndal ñëpp. sëñ Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir yebal ko fi. Serigne Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir yebal ñu fi. ci kër gu tedd kër goo xam ne yoonu murit wépp xam nañ ko. waxuma juddu bi. nee na jëlale na juddub kër gi. waaye taxawaayam ko rafet ci diine. waaye taxawaayu borom kër gi ci diine. ak jokk ak bokk. ak luy jokkale ak bokk. fexe ba lislaam bépp. ba lislaam bépp. nekk benn bopp. nekk benn bopp. loolu sëñ Abdul loolu day Cheikh Abdul Aziz. al Amin. al Amin. liggéey na ci liggéey boo xam ne. képp ku ci aju ci moom. sa àdduna ak sa alaaxira. sa àdduna ak sa alaaxira. mën naa defaru. mën naa defaru. ngi leen nee na ñu ngi leen di siyaare. daaw na daaw waxoon na ne. Sëriñ la. te su ma ko waxee. nee te su ko waxee. joxe firnde. dana joxe firnde yi. ndax bañ koy tuddé serigne Abdoul Aziz senior ndax bañ koy tuddé serigne Abdoul Aziz senior bobo mag ñepp gi bobo mag ñepp ngi fi. wala bok ñi ci ëpp. wala bok ñi ci ëpp. bobo tout tank lañuy wax. bobo tout tank lañuy wax. waye mag ñepp dëppoo. waye mag ñepp dëppoo. jox ko. kàddug jox ko kàddug Cheikh Seydi Hadji Malick. mosu yàq dara. te mosu cee yàq dara nag. ku yàqut nag. ku yàqut nag. defar nga defar nga. adduna di dox. adduna di dox. bañ tuddee ko sëriñ Abdoul ba ñu tuddeewaat ko sëriñ Abdoul Aziz Al Amin. tur wale moom. wale moom. kenn dootu ko ko wax. kenn dootu ko ko wax. am marxala boo ab wàccukaay la woon. ab wàccukaay la woon. boo xam ne jaar na fa. boo xam ne jaar na fa. ba weesu ko. al amin nag. al amin nag. dafay tur wu am solo ci diine. day tur wu am solo ci diine. yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. yonent ba mu nekk gut ndawal sunu borom. ba mu nekk gut ndawal sunu borom. yéefar ya mu dëkkaloon ca Makka. yéefar ya mu dëkkaloon ca Makka. ñëpp d'accord nañ ne. ñëpp d'accord nañ ci ne. al amin. Muhammadul Amin la. ba yàlla sunu borom yónni ko ci jaam yi. ba yàlla dogal sunu borom yónni ko ci jaam yi. sëriñ Abdoul Aziz boobu. sëriñ Abdoul Aziz mii. bi yàlla dogalee ñëpp di wax al amin. bi yàlla dogalee ñëpp nangu ko tey di ko wooyee al amin. ñëpp nag d'accord ci. ñëpp d'accord ci nag. loolu la doon dund. loolu la doon dund nag. ba dégg xalif général de Tidiane. ba xëy dégg nag xalif général de Tidiane. ku tàmbalee ci tuut tànk. ku tàmbalee ci ak tuut tànk ñu la koy wooye nga dem ba mu yàgg nga dem ba mu yàgg alali dëkk bi lépp ñu la ko dénk alali dëkk bi lépp nga doy leen ca ñu lañ koy dénk mu tudd al mu tudd al amin adduna ba mu di dox di dox adduna di dox di dox bañ na ko lépp loo xam ne bokk ci Seydi Maam ñu ne ko lépp lu bokk ci Seex Sidi Asi yaay kilifaam yaay kilifaam boobu daraja benn boobu daraja nag moom benn daraja ëppatu ko doole yàlla yàlla fay. yàlla nañu ko yàlla fayal. te sëmbatal ko ci njabootam. te sëmbatal ko nag ci njaboot gi. yéen ñi fi nekk it. yéen ñi fi nekk it. yàqu leen ci dara. ci dara. ndax wax nga ko léegi. Hmm? sëñ Moustapha. nee na sëñ Moustapha wax nga ko léegi. ak nawloonte dafa am solo. ak nawloonte dafa am solo. soo nawloo nit. soo nawloonte ak nit. bu la ñaanee soxna. bu la ñaanee soxna. danga ko ko may. danga ko ko may. sa doom. sa doom. bu ñaanee doomam. bu ñaanee doomam. nga may ko ko. nga may ko ko. bu ngeen di waxtaan waxtaanu biirum néeg. bu ngeen di waxtaan waxtaanu biirum néeg. dara du ca des. dara du ca des. la nekk ci sa xol lépp. la nekk ci sa xol lépp. da nga ko génne. foofu mooy nawloo. mooy nawlonte. Euh, sëriñ Basiiru. sëriñ Basiiru. xam na kër gi bu baax. xam na kër gi bu baax. ndax ki fi nekkoon. ndax ki fi nekkoon. digganteem ak sëriñ Basiiru. digganteem ak sëriñ Basiiru. lu nit néew néew xam-xam. lu nit néew néew xam-xam. boo xamee Tiwaawan. boo xamee Tiwaawan. wala nga xam Touba. wala nga xam Touba. seen relation. seen relation ñoom ñaar. da nga ko xam bu baax a baax. waaye nag mooy nawloo gi ngeen waxoon. waaye nag lépp mi ngi nekk ci biir nawloonte googu ngeen waxoon. sëriñ Abdoul Aziz. sëriñ Abdoul Aziz. dañ koo dénk. xadratu malikiya. dañ koo dégg dénk xadratu malikiya. mu di ko doxal bu baax. mu di ko doxal bu baax. sëriñ Basiiru ca Touba it. sëriñ Basiiru ca Touba boobu rek lañ ko dénk. boobu rek lañ ko dénk ca Touba. mu di ko dund. moo tax seen ànd. moo tax seenug ànd. am solo lool. amoon solo lool. délégation bi ànd ak Abdoulaye muy ànd ak euh, Cheikh Abdoulaye Gaynde bi nga xam ne moo ànd ak Serigne Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma. mën nañoo wax ne. mën nañoo wax ne. buntu kër yi. buntu yi. kenn ku nekk mu ne yaa ngi ci biir délégation bi. loolu nag. loolu li muy firi. loolu lu muy firi. mooy xam ne suñ xam ne suñu kër lañ jóge jëm si suñu kër. loolu mat naa sant yàlla bu baax. sëñ Abdoul Aziz. sëñ ñu ngi koy siyaare ci seen tur. ñu Aziz ci seenu tur. fa mu nekk. fa mu nekk. yàlla na ko gënal fi mu jógee. yàlla na gënal fi mu jógee. te am nañ ci yaakaar bu wóor. te am nañ ci nag yaakaar ju wóor. su ñeme woon sax. suñu ñeme woon sax. day wax am nañ ci yàqin. dañ naan am nañ ci yàqin. ndax dundam lépp. ndax dundam lépp. mag ñi la ko jox. mag ñi la ko jox. dundam lépp. dundam lépp. lislaam la ko jox. lislaam la ko jox. dundam lépp. dundam lépp. ay bokkam ay bokkam la ko jox. ak i taalibeem. lu mu mës am. lu mu mës am. def na ko ci diine. def na ko ci diine. yéen itam. yéen itam nag. mu dimbalee leen boppam. mu dimbalee leen boppam. yar leen. yar leen. jàngal leen. jàngal leen. teg leen ci siraatal mustaqima. teg leen ci siraatal mustaqima. moo tax lii mu leen dénk. moo tax lii mu leen dénk. tey bu dellusiwaatoon jamono. tey bu dellusiwaatoon jamono. dana xam ne loxo yim ko bàyyee. dana xam ne loxo yim ko bàyyee. gàccaayaluñ ko. gàccaayaluñ ko. it. barki démb rek. barki démb rek. ñëw naa Tiwaawan. ngeen ngeen kon xam ngeen li fi ne. ñu ngi leen di wax dal leen ci seen biiri mbokk. fii ngeen ñëw ki fi nekkoon daan liggéey dafa am lu ko yàlla boolantewoon woon ak yéen muy cofeel di pas-pas di nawlonte nawlonte gu sax ñaari nawle bu ñu séqee mbir ñoom dong ko mën a jëflante ngeen naan ñëw ñuy fekkee ba tey yokkiwu leen sunu maam nag daan na wax ni wëllëre way weq dafa gën ca way màtt mu ni wëllëre wi weq mooy wi nga seq ak nit di ko ànd ak moom ba mu xëy xëy jóge fi dem bàyyi càllale ci njabootam nga ne ah ëllëg gise dana am kon fa yàllay dogalee gise naa door léegi seq ak ñooña mu bàyyee càlla ñu àndandoo ca wëllëre wa moom ngeen ñëw di mottali ci seen diggante ak kii nga xamante ni tey mooy Serigne Abdoul Aziz Al Amin daan naa wax toujours ni taawu baay mooy baay moom mii mooy taawu Serigne Abdoul Aziz bëri na fu ma dem ñu xoolee ma fa bëtu taaw waaye moom mii moom moo ma tëbb leer ak barke moo ma jox it lim ma jox ba fu ma tooree ñu ne ah ndax kii mooy taawu sëñ man ah man day may ci ña gën a tuuti. mom mi nak moy sunu bay ngeen fekk ci ko mu am mbégte lol dalal len wax ni nanu ubbi ubbe kàddu gi wan len ni fi ngeen ñëw seen peyu bop la fi ngeen ñëw seen mbokk ngeen fi fekk mbokk alalu yàlla la yàlla wax wa'tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يلا مو غارانتي تي مبوك موي علالم خيوالم مو يبالال نوكو منو نيو لين اوب منو لين نو اوب نو اندك مبوك اك تيوفيل اك نيمنتي وولونتي ناونتي جابانتي اند بوبو نيو سيخكو tabaarakallahu boobaak léegi yàlla nee na ana kan mooy ki ko def wa kuntum ala shafa xufratin ala naar yéen a ngi doon bëgg a tàbbi ca kàmbuk alkande ga ana kan moo tee tàbbi wu ca xanaa du nun yàlla yàlla moomu tey moo nu boolewaat tey ci pey bi ci barab bi yàlla na nu ko yàgg séq at yu bëree bëree bëree te mu ànd ak bépp wér ak sutura ñu amaale ci itam occasion sunu maire muy le maire de Thiès di sëriñ Babacar Diop yàlla dogal mu ñëwoon at mu jot naka jekk da koy dox ñëw nemmiku ngir kóllëre ak cofeel faf ñu ne ko ñu ngi fii mu ñëw bi mu ñëwee di wax muy wax ba naan ah Serigne. Euh, Ahmed Saloum moo ko doon introduire ci Serigne Baax. te borom kër gi. te borom kër gi. Maulana Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. Maulana Al Amin. dañoo ànd ab tukki lu ëpp ñaar fukki yoon ak juróom. ci Europe. ci Europe. ci Afrique. ci Asie. ci Asie. ak ci moyen bi. muy dëggal rek li sëñ Modou Mbacke wax léegi. na liggéeyal na mag ñi. waaye liggéeyal na lislaam fu ñu mas a mu taxaw ci pojom ba ci Malaisie ba ci Indonésie bu jëlee kàddu du wax ci turu tarixa ci turu lislaamu Sénégal lay wax kon nag kooku sagal na lislaam protocole bu mu am mu ñëw ci lislaam walla lu jóge ci lislaam jóge ci moom jëm ci ak njabootam dañ naan loola daal mu lu munta ñàkk la rek. nee na wax na ko sëñ Moustapha mii lu matul ñaari weer. nee naa leen pour gàttal rek. day ñaari exemple yu mu bëgg a wax ci moom. bonn bi mooy buñ ñu mës a ànd libi. wala ci yeneen réew yi. wala kilifa yi mel na moom. dañ leen di jox ay suite. dañ leen di jox ay suite. xam am droit diirub ñu day ndax xam ne dañuy am droit diirub ñu fay ne. lu ñu soxla ñu lu ñu soxla rek ñu andi leen ko seen néeg. te duñ wàcc restaurant bi. te duñ wàcc restaurant bi. waaye sëñ Abdou Moussa nangoo toog ci waaye sëñ Abdou Moussa nangoo toog ci ab sitam. bu heure bi jotee rek. bu heure bi mu ne amet nañ dem ci restaurant ba. dajale Sénégalais yëpp. dajale Sénégalais yëpp. di wax di wax waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom. te waxtaan wi yëpp nag. ay leçon la ay leçon la. ak i وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين بابكر نيغلي نيو كي تورو سرين بشير مين في يبل اك مبولم نيما اندال نيب تي بوما تي تودي سرين شيخنا دا نا مانا يوبالي ني تي ديس di sàkku ci yow. nuyoo boobu. mu jàll ci sa rakk yu baax yii nga toogal. di sëriñ Moustapha. sëriñ Cheikh. ak sëriñ Sidi Ahmed. ak mbooleem njaboot gi yëpp. monsieur le maire ñi ngi lay nuyu yow itam. di am mbégte. ci gisewaat gi. foog foog naa mas nañoo daje ci téere bu ñu bind fi barab bisimilah. c'est communauté de valeur mm-hmm. fa tabaarakallaahu yàlla indee ko nii rafetale ko nii yàlla na ko yàgg rafetale nii ñu am mbégte suñu baay bii xam ni amul semaine boo xam ni duma wax ak moom ci téléphone su ko jot mayee ma yegg si ci moom ndax xam naa cofeel gi mu am ci ñun am ko ci suñuy wayjur muy cofeel boo xam ni daf ko bokk ak bu ñu neexee ñu ni suñu baay la bu ñu neexee ñu ni suñu rakk la luñ ci wax rekk baax na muy sëriñ Bass Abdou Khadre di kenn rekk ci taxawaayam ci famille bi

allahu yal na yàlla saxal mu nekk ñu lool nag ndax kenn ku si nekk ci ñoom buñ leen xoolee xam nañu fii la ñu bokk seen bopp lañ fi fekk fa tabaarakallaahu yàlla na sax et ñu ñu fekk ci itam di suñu rakk yi xeebuñu leen ci taxawaay ndax xam nañu bu baax li leen bàyyee lan la ñu taxaw ci ah ndax suñu wayjur dundam yëpp ci tarbiya la ko seeyal dundam yëpp ci tarbiya la ko seeyal xam li mu doon lan la mu taxaw ca na mu ca taxawe de li mujj ci dundam li nu ci gën a téye mooy lépp loo xamante ni diine la fa mu ko teg lépp loo xamante ni bokk la fa mu ko teg fa tabaarakallaahu lii dafa mel ni yàlla moo ko tànnal boppam xéewale ko ci guddi gu mel nii ci bés gu mel nii ndax daan na am suñu baay bii ñu am ci moom cofeel bu amul limite ay cofeel rek ñoo daje fa tabaarakallaahu et ñii nga xam ni ñoo daje ci délégation bi sëriñ Cheikhouna sëriñ Ahmed Saloum suñu bokku deret sëriñ Modou Mbacké Sy waroon nga fi fekk sax sa naataango sax laa koy wax parce que Serigne Mor a ngi fi woon ca suba ñaari fan la ma wooni ma a ah, délégation bi jóge Touba kañ la ñuy ñëw ma ni ko ah, amaguma confirmation waaye xam naa ni fii léegi euh, mujjante Bourde mu ni ma kondey buy jot nanga ma ko wax bi ma xëyee suba di ko woo jotuma ko ma jékki-jékki gis ko fii

radiallahu anhuma et du lu ñàkk solo mukk ndax yenn saa yi nga gis lu ne nag ci jamono waaye nañu fonk suñu bopp nañu taxaw nañu am fayda nañu am personnalité parce que kenn yarewuñu leneen bi ñuy waree jàngaloo nit ñi jàng nañu bi ñu waree dox dox nañu xam nañu bu baax lu bëree bëree bari ci àdduna te itam nag keppaaru mag boo ca yaroo dina bëri luñ la déy am na lu bari loo xam ne déy nañu ko fa tabaarakallaahu ah mooy suñu guidance ñi ngi leen di gërëm di leen sant waxtaan wi gudd na waaye lépp rafet na suñu meer bi itam bi ñu nuyoo rekk dama ni ko